waa yaakaar nga yaakaar nga ne élection dina am lu koy tee am booy élection amul réew mi génn maag lim si naa subaana constitution jox li wax li ñu wax constitutionnel ñu génn candidat yi kuréel tañ sa nga ni candidat yi wàññiku leen nañ ko def ko def réew mi nag kenn moomu leen de borom dëkk boo gis ñu ko yaa moom dëkk ba te mun te waa dëkk ba dañ ko yaa moom dëkk ba mu deen dafa moom nit ñi nit yàlla mi leen bind moom aca salaamaaleykum salaamaaleykum sama gars yi bëggee naa leen de mbaa yéen a ngi am jàmm bu baax a baax a baax mbokki internet suñu xalaat TV gars yi abonné leen te aimé vidéo yi commentaire partagé ah yaakaar naa ni seetaan ngeen vidéo boobu noonu ji njëkk dugal may suñu maam jooju Alaaji Mbay Peex ndeysaan kàddu yi dama koy diglu ay ree di ma jàpp ay jàpp ma trop trop trop trop trop wallaahi waaw ay ree damay jàpp trop ndax euh, dégg nga nu mu waxee <laughs> waaw nee naa nag sa kàddu sa kàddu yi nii nag wute naa sa kàddu yi nga daan wax bu njëkk ba ci boo toogal naan njiitu réew mi jàpp ngeen ne adduna bi daal ki fi nekk rek moo fi war di nekk bu fi nekkee moom boo leen toogee moom lu leen neex ngeen wax waaw comme nag dem ngeen ba jàpp ne xëy na réew mi dafa dafa noor a génn ci seeni loxo wala dara moo tax. waaye nag fii nag li gars yi naan muus di fi ñaanee ñeex loola fi am seen affaire yooyu noonu noonu noonu ay magu yi ay ay ay ay ay ku toog ngeen dem nekk fii ci ginnaawam lu wax ngeen ne ko gong yooyu moo fi war a jeex ci réew mi réew mi dafa jóg dafa war a jóg pour changer dafa war a jóg pour changer xaw ma kan mooy doonal président fii de mais yii yëpp da cee war a jóg waaw genre yi me nii nii ak yeneen. genre nit ñi nga xam ne nii leen mel façon jikko yi leen yor mooy lan seen intérêt fu mu nekk fu mu demee xam ne fii dutul abati intérêt sax ñu nga gisee ñu soog a commencé di changer avis wala di waxee noo xam ne nii daaw ko waxee. dafa war a dafa war a changer dafa jug pour changer dafa jug pour changer yi ak ay genre yu alaaj ay xarim Samb ak genre yooyu noonu seen intérêt rek dañuy xool moom fii la defoon déclaration ay président chef d'état daa war a jàpp daa war a tëj daa war a rey. ah mu mel ni ñoom nekkuñu ay kilifa yoo xam ne daal ah mënoo comprendre waaw ah, réew mi nag moom laaj na dafa laaj dafa laaj rag de rag defaraat ko ba mu ba mu ba mu ne kott korot waaw ah, ba ñi fi nekk nii ñëpp ñu raxas leen jëlee leen fi kon gars yi di wax nag mi noonu abonné lii naa ah, te aimé vidéo yi commentaire partagé